surtout ci président buy waaj a dem bëggoon tamit rappeler président Macky di ci insister ñun ba ñuy dem dialogue national dañ ci ànd ak ful ak fayda caaxaan ñu dialogue national moo tax bu ñu gaañee di xas ak di saaga ñu leen te kippéewuñu leen parce que fii àdduna la am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur ñu loon ci dialogue national tey ku leen woowoonte ci dialogue ñoom ñooy fay jiitu wonte nag lépp ci jàngam ci jàngam la.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 di rappeler tamit que amul benn urgence bi ci mbiru santé bi ci mbiru koom-koom ci mbiru kaaraange amul benn urgence d'ordre national bu mën a justifier tey ñu bëgg a randal ay élections à part lan à part bëgg a toogaat fii bëgg a continuer di exercer benn mandat de façon antidémocratique anticonstitutionnelle illégale surtout pour benn président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 d'essayer d'être comme toi. Mon père m'a dit apprends à parler comme Cheikh Gueye. Il est élégant dans y a des questions, je te laisserai communiquer là-dessus. Non, ça dépend. Voilà, euh, je ne sais pas si on a un micro-baladeur, parce que sinon, d'accord. Mais j'ai demandé à Cheikh Gueye certaines questions éventuellement d'apporter des éclaircissements. Allons-y pour la première question. Marie-Midi c'est parce que j'ai un avion à prendre à 22 ah ci suñu li nga développé mooy protection. alors suñu gisee sa sa discours bi nga obligé de mën a porter élection waa présidentielle ñoo koy tourné alors que y' a quelque temps actualité bi ñu ko occupé woon mooy am na seen koo xam ne si opposition bi la jógee loolu problème même chose.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

yow kooku kenn moo ko xam mu bokk yow yaa gën a xam ñëpp ñu ngi seetaan fii ñëpp xam nañ bu baax a baax baax ko kooku su bokkule tey ci élection yi jaay doole bu ñu jaayoon doolee Khalifa Sall ci deux mille dix neuf jaay boobu lañ ko jaay tey loolu man mënu ma si dara yow mii mënu si xale yi doon wootee xeex mënuñu si dara parce que nag yàlla mooy buur bu mag ji te moom moo xam mu mu koy defee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 parce que tey ñu bëri ngi bëgg a taxaw fii di bëgg a dëkkaloo taxawu Sénégal fu mu dëkkul waa am nañu taxawoon biir yeewi askan wi lu tax yéen du ngeen ci wax journaliste yi lu tax du ngeen ko commenter comme nu ngeen di commenter di accélérer waa waa waa waa waa waa waa taxawu Sénégal je mais parce que yéen fekke ngeen démb ak bët ki démb yeewi askan wi seen ñu ne à la kulli al il faut que Khalifa Ababacar Sall bokk am na wala amul